njaago bu mag wala njaago or euh, bi njaago urus bi. Laurent Gomis. Laurent Gomis Gomis. <laughs> Laurent Gomis mbokk yi Fallou Ndiaye ñoo ngi koy nuyal bu baax a baax ñi deel Ndiaye production moo dox boobu combat ñëpp nee nañu woon nag mënul nekk. ñii ne euh, mën na nekk ñii ne mënul nekk bu Siteu bokkoon na ci ñi nga xamante ni neena na moom du ma bëreeg Laurent ndax man ak moom. du coow làmb du palmarès bu ñu boole waaye ñu jékki-jékki mbokk yi gis ne combat bi taxaw na xanaa tungu ne nag du teew ñu nat ma bàyyi ma nuyoo. waxtaan ak moom waxtaan la moo tax combat bi taxaw ndax man mi wax ak yéen woo naa ci jàmmaarloo ba ko booleeg euh, ki nga xam te ne mooy Laurent waaye dafa bañoon na ñëw léegi-léegi nag combat bi taxaw na ma bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan nuyu naa la. waaw nuyu naa la Ousseyn ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi di sant sama ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax a baax di sant tamit sama staff bi xam nga moo loolu xam nga temps yi Bou Siteu dafa am staff bu bees xam nga rek waaw su mel ni Bousse Ketchup ak Daouda Mbow international xam nga di bëggee gaa di bëggee tamit sëñ Modou fi ñu ñëwee nii di fi defee émission bi ku ci mel ne Cheikh nekk nit ku baax xam nga ak soxna si maa nii bu baax a baax di bëggee sëñ Modou bu baax gis nga fii tey ñu ñëw ma rek fii maanaam xam nga rek moo loolu di wax ne Omar baax na dal ñëw fii di jënd si sant yi ku ci mel ne Omar Baas Aziz Ndiaye xam nga mu rala ñoom ñëpp ngi ñaan ñu ñëw jënd si sant yi en face tribunal bi xam rek waaw ñu ay Baay Faal lañ nekk nit ñu baax moo tax émission bi dama xalaatuma fenn fu dul ñëw fii ñu defee ko fii waaw di bëggee gars di bëggee sama fans yëpp nag waa képp kuy bëggee Bou Siteu rek maa lay nuyu bu baax a baax a baax waaw. mais bu la moo tax nga bëgg coow. parce que mënoo jógee ci ci ci ci ci ci Malick Ndiaye 37 fou combat boobu bàyyi woon coow ah Bou Siteu Malick Ndiaye dina amam du am nga jógee ci loolu yàlla may ci ndam ba tey combat bi coow li fayul nga jékki-jékki duggaat ci Laurent bi nga xam te démb bi ma la wooyee nga dem am naa combat ma laaj la yow kan la loo waaw dama na la maa ngi mbëru TikTok bi la maa ngi mbëru TikTok bi ñoo daje de xam rek xam rek génn si internet yi di wax rek yàgg maa tëkk ba mu bëree ba léegi mu ngi toog fu mu toog émission bu mu def na tudd ma xam nga bëgg a man mais maanaam ni ma ñemee ba tëkkoo ma bi su combat bu arbitre ne pure na dëggal boppam rek taxaw dëggal boppam. mais mais lan moo la dugal ci combat parce que man bi ma la woowee yëpp su ma juum yaa di la woo. bëgg la invité ak Laurent da nga ne ma du mag booy boobu booy boobu benn combat daf ma def huit combat xaw ma neuf lan moo ma jël ko rek muy maanaam dafa am ma jël ko te parce que coow li bëri na seeta seeti nañ Tafa Gueye numéro 2 mu ragal xam nga gars yi ñemewuñ waaw seeti nañ Tafa Gueye 2 mu ragal te man lamb laa fi nekkal. te parce que corona bi dafay jaaroon ma bëre si benn combat boo xam corona bi gis nga nu mu demee woon ñu toog deux ans yoo xam bëre wuñ ko ma perte si bëri. waaw ma perte si lu bëri xam nga waajaat fi combat mu yàqu sama diggante ma Malick Ndiaye bi daal dafa am lu tax ma jël ko kii xaalis moo ñu boole mais du dara du palmarès du dara waa xaalis moo ñu boole comment dañ ma see fay loo xam te dama ka daan dégg rek som yooyu noonu xam nga waaw moo tax ma jël combat. mais loolu tamit est-ce que du euh, nga jël ko ndax xaalis est-ce que du. Euh, Laurent def Laurent def benn combat nga def ci neuf du erreur. non du erreur te parce man lamb mooy sama métier. waa lamb mooy sama métier ta parce que dama pare pour dimbali sama yaay waaw dimbali sama papa waaw sama gaale maa ko yor xam nga kon buñ ma fayee yenn somm yi nii si booy boo xam benn combat la bëre ñu may fay ma si benn somm bi nii du ma ko tudd waaw mais dama koy jël day mel ni kon yéene ma samay waajur wala man pare ma pour dimbali sama yaay si lamb man lamb man lii mooy sama liggéey waaw man dama bëgg nit ñi di bàyyi xel lool man lii lamb sama métier la waaw ñëw ma ci lamb nag di foowee lamb waaw dama bëgg làmb te dama yàgg ci làmb 2016 ba léegi maa ngi ci làmb. noppi doo ko may revanche yaa ngi xalaat Laurent daal. non man ay Liss Ndiago Liss Ndiago kese nekk fi mbër nekk nekkuma fii di xaar ay Liss Ndiago wala may xaar ay kii ak kii Liss Ndiago tapen moo tax jëlu ma dem jëli ji Tapha Mbeur te parce que maa moom ñoo waroon bëre mais la moo tax mu daw dem jëli ji Tapha Mbeur. da nga jàpp dafa maa tapet dafa ragal te parce que mooy loolu gars yi seet nañ ko mu ne booy Bou Siteu sama sarbet la jël moo tax. yaa ngi fàttali combat Ada Fass bi sarbetam laa linja ak asmaam xam nga rek. mais mais mais mais loolu pour la. mu ne du du du man. dem jëli ji Tafa Mbar tapet. booy ragal ay tapet lañ dañuy wax rek internet yi ñoo nit yi nante yi wër la ñuy kebatoo te man musuma def émission ba dajale ay nit di di fit. waaw. tal mooy àbb fit dina ñoom ñooy àbb fit gisoo na bu ñuy def émission. woo boo yëpp ñu ñëw boo yëpp ñu ñëw toog. bu ñu waxee gaa yu. bu ñu waxee gis nga gaa yu ñu yaakaar loolu mooy fi loolu du làmb de barki baa Bamba lool du làmb bu ñu tëjee barrière rek di nga xam ne lépp dëgg la foofu nante yi ci kaw stade bi la ñuy nekk waaw da nga bëri di wax rek di nga xam ne lépp dëgg la. kan ngay waxal fi mu toll ngay waxal wala Liss. ñoom ñaar ñëpp laay waxal ñoom ñaar ñëpp laay waxal. mais mais Liss Liss dafa am na lu ko doy dafa am bëri ñu fi. tënk ko bàyyi waaw rëcc. mais raq ji moo sob rek di dëgër dëgëru bopp di jaay affaire mbëru TikTok mais dina xam ne lépp dëgg la. mais man lii sama problème mooy Laurent ñeme gi la ñeme. démb da ngay sax mu ñuuxu la xaw a dugal épaule am nii di la pousse. day xaar rek mais xam nga di mooy loolu yooyu mu doon def yëpp day àbbu fit tapper la ñemewul waaw maanaam day àbbu fit xam nga rek pour bëgg a am nu ma ñemee mais yooyu noonu yëpp du dara ay stratégie la rek mais du ma ko topp si loolu. mais li wax naan da da koy baalu. ay xaw ma fan ngeen tasante woon nga koy baal na la demee sa diggante ak moom ci lool loolu muy wax noonu maa ngi dégg nga bi mooy ñetti yoon nga koy wax waaw maanaam bi mooy ñetti yoon moom muy wax loolu sorti nee na dañoo daje ma ñëw ba si ñoom yow imagine li ma lay wax nee na damaa daje ak ñoom sax ku tapet sax bu daje woon ak ñoo xamante ni nii xam nga ay business xanaa sax doo doo taxaw naa leen ay baal leen ma affaire yooyu noon ay dama nee na damaa ñëw si ñoom nee baal leen ma lépp lu ma leen defoon ñoom la lañ ma def lan lañ ma def ak lan laa mos a sekk ak ñoom man looloo ma jaaxal de muy wër di wax rek. da nga jàpp ne daf lay sosol. non day sos te parce que mu ngi wax naan ay gaal a bekkob te kooku ñaankat bu mag la sama combat bi passé man ak ñoom daj mus nañ fi daje nañ fa. waaw Ronald ñëwoon fa noonu ñu ko doon indi si kooku pour mu ñaanal ko suñu koo xam nga ñoo bokkoon journée loolu lay expliqué xam nga rek ñu daje noonu si gàlla bi xam rek yaa ma gën a xam mais man du ma si kër sëriñ di fa indi coow waaw ku si mel ne Bekom maa ngi koy nuyu maa ngi bu baax. waaw ah, xam nga rek moo loolu man boobu du man moom boobu maa ngi doon waaj sama combat maa ngi Malick Ndiaye. mais nag fa nga wax ak moom ndax fi mu toll nii avance am lekk te xam naa ne sa diggante yow ak moom moom coow day doog a tàmbali te xam naa ne du fi yam. waaw xam nga rek boobu maanaam su may wax si moom nii saraf may ñeme mais man aw ma lu may wax si mu kooku la laay wax si moom. kan la daan benn mbër plateau booy boo xam ne du jour la. plateau jour la. jour la doon gée BSM e, xaw ma kade jour la daan xam nga. nekk si dëkk mel ni nag moo mu ngi mel ni ku daan mbër mu ngi mel ni maanaam benn ndaanaan la daan te booy bi mu daan zóor la plateau mais combat bi maanaam du tooma rek du nekku sax ma booy bi wóor na Serigne Touba yow xaalis daam lu boole rek wóor na Serigne Touba Mbacké mais bi est ce xalaat parce que ñu ci bàyyi ne nañ Bou Siteu état dafa tuuti est ce que xalaat nga yokk sa diggante yow ak Laurent doole yokku yokku masse bu baax a baax waaw la 6 mars yàggatul le 6 mars maanaam dinañ gis beneen Bou Siteu ndax parce que ni may wax ak yow nii rek damay waajal benn voyage waaw di si di nuyu Omar Baas bu baax ak Bousse Ketchup maa ngi nuyu bu baax di nuyu tamit Daouda Mbow waaw maanaam man ndeysaan xam nga rek maanaam ñooñu dañ may jàppale ñooñu ñëwuñu di ànd ak man pour xam nga mooy loolu ñooñu dañ ma bëgg ba ma yëgal ko sama bopp. waaw maanaam nekku ñun ñoo xam te dañoo ñëw pour ànd ak man may toog si émission di leen tudd wala dara non non ñooñu dañ may jàppale bu baax ku ci mel ni Bousse Ketchup Daouda Mbow international di nuyu Cheikh Kouyaté bu baax Zara jabaru Cheikh Kouyaté maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu yaay Daouda Mbow bu baax a baax xam nga ñooñu maanaam dañ may jàppale mais xam nga nekkul nekkul dañuy ànd ak man nii xam nga pour may toog di leen tudd noonu noonu noonu ñooñu dañ may jàppale ci zaar ak ci baatin Laurent dane di nga gis loo musul gis dina la daajal yu bees taax nee na li ngay sosal nag di wax naa ay bugguma sama papa nee na waxuloo loolu loolu la ay ku bugg papaam ku bugg paxa gisoo maa ay ku bugg ëpp ku la nan man xaw ma sax li muy wax du ma ko toppandoo. ah tey la 24 de tey la 24 nga tey la anniversaire Laurent. waaw di wax ne joyeux anniversaire rek di ko wax ne joyeux anniversaire ak sa ñaawaay bu ma la jàppee di nga xam ne lépp dëgg la. bu si dafa ñaaw. dafa ñaaw bu ma la jàppee naa la dóor dóor yi métti yow yow du ma la bëre noonu rek di la daan kese baa la de naa la daan ba pare mbéj la ngan di yow da nga koo kongoon ñëwee ngaa mbéj loolu. ah yow amul wax. est-ce que moom du la dompat gannaaw dompatoon na plateau. dégg ma la li ma li ma kong maa la moo tax mu dem toog kere naan dama koo ñoppate xam nga point booy dafa may xam nga rek dafa ni wax moom dafa may roy lu ma génnee mu ne day génnee leneen li te man du ma du ñoom. waaw maanaam man jàpp ne da nga jàpp ne sa ci sa élève yi la bokk. kooku si élève yi la bokk barke seen door ku tolloo moom amul amul sama école. maanaam comme Rona ku toll moom ni man du ma contact sax ku toll ni Rona ni sama école kuy jàppante ay safara mbay jóg xam nga di jàppante ay ñoom Ngala ay ñoom Lawrence bébé guy gi imagine toi ñi ma lay wax kuy jàppante ak booyooyu tey ji benn Rona bi ma dinaa dalanteek moom di am lenn lu may xalaat wala dara xam nga rek Ousseyn booyoo du ma ak moom waaye Ousseyn Ousseyn waxuma la ay waxu kii de billaay walaay booy bi dama koy duma duma yi métti daan ko mën ngaa duma Laurent. dama koy dóor dóor yu métti daan ko laa naa ko kalaat ak. waxal ak moo ngi lay seetaan. waaw mu ngi may seetaan billaay wala naa la dóor dóor yu daan la du ma morom. waaw yow coow moo boole nii rek mais du palmarès du dara. waaw huit combats neuf combats laa am sept victoire am ñaari défaite. waa te du défaite sax defaru la. combat yoo xam te damaa daanu da jàpp ma ngemb jàpp ma dara ay science xam nga am sept victoire ko kon kon waruñu ma tëkkaleeg genre booy waaye lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay jàppale di la di la di la say say supporter lan nga leen di wax. waaw lu may wax samay supporter di leen wax ne maanaam ñu bëri sax bëgguñu woon combat bi ndax ñu bëri may woo dem ba léegi ñu ñaa ngi may woo ne ma yow mbër rek ñoo yàpp combat bi nga jël nag. mais combat bi dama ko jël pour dimbali sama yaay man sama yaay rek laa am ak sama papa man ñooñu waaw man sama yaay dafa sonn parce que Serigne Touba Mbacké waaw sama yaay maanaam dafa sonn dama ko bëgg a jàppale combat bi dama ko jël pour jàppale sama yaay. waaw ah, dama bëgg na képp ku déglu lii rek bul ma woo sax naan ma ay mbër lu tax nga jël lii ak lii waaw ah, ma dama pare pour jël ko pour jàppale sama yaay sama yaay laa am man lu ma am sama yaay laa koy jox waaw sama avance instant yi Zale mu may woo naa ma doo yow jël sa xaalis mais su ma ko jëlee vidéo yi après dañoo koy dinaa dem ba sama yaay toog yëkkate xaalis nu mu toll noonu ma jox ko ko man ñoom laa am man ñoo tax may rayante waaw man làmb lii sama métier la aw ma beneen métier man bu séré ban beneen métier ban laa am làmb laa am mais daw bay daanu xam mbër la mais mbëru TikTok la comédien la. mbëru TikTok moom xanaa moom bu ñëwee ci làmb ji xanaa wax la ci am. ak def mouvement. waaw def mouvement xam nga def ay spectacle reetaandoo nit ñi bu jeexee jeex na moom loolu la am ci làmb ji. waaye te yow yow li ma la léegi kan ak kan la daan léegi loolu laa lay laaj Ousseyn. Plateau. ak kan. ah nee na la ñu bëgg a teg. non dama ak kan la daanaat. non loo bu Plateau dong la fi daan. benn nit kese booy boo xam ne zóor la xam naa ko bu baax. dëkk koñu Arafa booy Zoro du mbër booy boobu combat bi dañoo combine combat la. waaw ah, maanaam xanaa lu bees la. dañoo xamante ne daa combine de te parce mooy loolu. booy du munu woon daanu ci bés boobu. la comme ay man bu sudee du ma combine bëre man rek man du ma combine bëre du ma waaw du ma bëgg daan wala dara. waaw ñun ci làmb lañ nekk xam nañ lépp nu demee mais nag mais nag sa waay est-ce que du dem jàppale loolu ndax nee na sa combat yaak moom jeexagul ba léegi ndax nee na da nga koo kojoon linjaa ko ah. Malick Ndiaye te nee na dina la linjaa ah. sama juuma seetaan nga loolu seetaan naa seen sorte mu ne mu ne ne buñ xeex mais imagine toi koo xam arbitre dafa na piib sama diggante ma dóor ko dóori met toog ci kawam konko kooku buñ dajee mu ne dañuy xeex léegi nan lay war a demee ah, laaj naa la ko dama lay imaginer laaj la ko yow non yow laa koy la xam nga yow ko doon wax ne léegi imagine toi koo xam arbitre dana piib ñu tëj barrière yi. moo tax ma du jàpp moo tax ma ne est dem jàppale ji loolu. waaw na ko dem jàppal ndax mbokku njaagoom la man njaago yi damaa xam seen sarax. waaw man njaago yi damaa xam seen. ay tuur ay tuur la njaago yi di nuyu sama mbokku njaago yi sama waa koñ dama ay njaago rek ñoomay kii xam nga di nuyu njaago yëpp di leen wax ni waaw bu taakoloo wan seese rek waaw ab buku papa na gaa yëpp waajal boo day xaanjara du dërëm tapper la. kàddu yu mujj yi ñu tàggatoo. waaw kàddu yu mujj yi maanaam Rona di ko wax ni na yaru waa tam maanaam na xam ni muy waxee te parce que man du ma moroomam waaw maanaam bëgg a bëri Bou Siteu rek warul tax ngay génn di ko wax lu ñaaw si internet. te parce que lamb baaxul loolu ñi lay seetaan lamb maanaam facteur de développement la addunaa koy suivre xam nga ku si mel ni Daouda Mbow nekk koo xam te ne amateuru lamb la di suivre lamb. lamb boo amee boo demee loos ñu fay toog ñëpp mooy loolu ay borom daraja lañ xam nga bëgg kon làmb dañ ko war a jox cëram di si wax wax boo xam te ne képp ku la dégg di lay nawloo mais imagine toi ngay ngay bëre nit la di génn si internet di di di wax yoo xam te ne loolu nit di xeebee xam nga man ma koy conseillé di ko wax ne na maanaam bëre war a bëre si Siteu warul tax nga koy génn di ka wax lu ñaaw man damaa bokk jàmm gën di ñaanal Siteu bu baax di ko ñaanal ndam ci kaw Papa saw xam nga di nuyu waa jàmm gën bu baax waa jak saaw jàmm gën si kaw surtout waa wàqi naan di nuyu waa wàqi naan bu baax a baax di nuyu tamit ay see jiboo biir wàq biir jàmm gën man jàmm gën fépp waaw sama jàmm gën la. mais fi mu toll nii est di nga demati jàmm gën. moom man après jàmm gën te sama sama avance voilà sama xaalis voilà war a dem jëli ji léegi léegi. loolu du andi coow. damay dem ba jàmm gën léegi léegi dégg lu ma la man su may dugg jàmm guy ga laay jaar di ñaanal taalibe yàlla na ko yàlla yërëm guy ga mafia bi gars yi mu bëgg foofu dañ may bëggee mais du benn Laurent bi mooy ñëw bëgg a jaay affaire seytaane bëgg ma jaxase waa jàmm gën te booy munul loolu waaw di ñaanal Siteu bu baax yàlla defal ko ndam di ñaanal taalibe yàlla yërëm ko di ñaanal Fodé yàlla xaare ko si àjjanay Firdawsi man damaa bokk jàmm gan waaw dëgg la yeewoo ma jàmm gan mais waaw man waa jàmm gan ma may bégee booyee benn koñ lañ dëkk jàmm gan rek waa te koñu koñu njaago waaw koñu njaago te koñu njaago man ay seta seta koñu njaago la dëkk man damay dem ba setaa di damay dem ba jàmm gan di seeti seta dëkk ba biir jàmm gan koñu njaago foofu xam nga seta maa bu baax a baax xam nga di nuyu tamit ku si mel ni suma benn grand boo xam ne ndeysaan fan yalla defoon soog bu métti waaw maa ngi koy ñaanal yàlla xam nga yàlla defal ko wer waaw ku si mel ni mooy loolu sama grand bu baax la bëgguma sax di tudd turam xam nga di ñaanal ñoom cuun sama gars yoo xam ne jàmm gën lañ dëkk am nattu nekk si prison bi. waaw cuun maa ngi koy bëggee ak dembis maa ngi di ñaanal kaso bu gaaw jeex ak jeylaane waaw ak son son mooy magam son maa ngi lay bëggee baax di la ñaanal nga am wér waaw ñoo ñu dëkk waa man bu Siteu jàmm ga ñëpp may bëggee mais bërëg Laurent rek warul xam warul tax mooy loolu boobu di génn di ma jéem a di ma bëgg a jaxaseeg waa jàmm gën tama dama bokk jàmm gën waaw noonu la demee nag. gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo ci Wassare Lamb di leen jox dig daje beneen yoon beneen mbër. aja tàggatoo tàgg kon pareegoo tàggatoo mbër lay nekk. tàggatoo fii. dafa sax fii dafa am ay grand sama boo xam nit ku baax la. xam nga saa yu ma ñëwee fii di si place Fallou Ndiaye daf may woo di may conseil nekk nit ku baax xam nga muy sëñ Modou waaw su ma grand bu baax la combat bi rek maa ngi ñu ngi siy am lu ñu siy waajal. waaw sëñ moo liggéeykat maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit ku si mel ni Seex ak soxna si ñoo bokk koñ xam nga nekk nit ku baax soxna si tur bi laay fàtte asu asu nekk nit ku baax waaw ñoo di leen ñaanal jàmm di leen wax ni fii yàlla na dem ba nekk ay place yu bëree bëree bëri waaw mooy loolu ñoom ay borom baax lañ di nuyu tamit Daouda Mbaw sama international bi di nuyu Bousse Ketchup gis naa jàppale bi di nuyu tamit Omar Baas. du ànd ak kuy daanu kuy daanu. xam damay ñaan rek yàlla na yàlla musa seytaan rek sama diggante man ak moom xam nga gis mel ni Cheikhou Kouyaté tamit maa ngi koy sant waa gis naa moyens yi Cheikhou gis naa di nuyu sa jabar Zara waaw Zara maanaam kooku waaw maanaam famille valeureux waaw Daara Mbow di leen ñaanal jàmm rek waaw mooy loolu di nuyu tamit Omar Baas bu baax ak Cheikh. Cheikh maa ngi koy nuyu bu a baax sofooru Omar Baas di nuyu tamit sama waa koñ di nuyu Baye Fall nante yi waaw di nuyu tamit maire Louga Moustapha Diop waaw maanaam day jàppale jeunesse su Louga yi gars yi nekk Louga xam nga ku fa xew la dara mu jàppale la xam nga Moustapha Diop maa ngi koy bëggee bu baax di ñaanal boloo tamit te ji bu ma xamee ba bu ma demee ba xam ay Moustapha Diop ku si mel ni la maa ngi koy nuyu di nuyu Amdi xam nga di nuyu Amdi bu baax moo tax ma xamante ñoom ñu waa di ñaanal Bolo daa war a bëre di la ñaanal ndam dimanche waa moom Baye Fall la di nuyu tamit mu Moustapha Diop bu baax a baax a baax a baax maire Louga di nuyu waa Louga yëpp sama fan si nekk foofu yëpp ak waa Tamba ku si mel ni ñoom Aliou gars yi mafia boo limee da ngay jum di nuyu nante yëpp Baye Fall parce que Serigne Touba Mbacké gis ngeen noonu lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje ba beneen yoon ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf